seeni di jël santaan di koy taal ci kër na dafa am solo ndax santaan garab la mais day teewul day neexal sa kër teewul day gën a yokkal taal sa kër mais jigéen ñi nga la damay ñaan sama mbokk jigéen ñi jigéen du tey sante ak boroom këram du bëgg coow du bëgg ay wax surtout waxu guddi ak coow góor lu mu tàng tàng bu ñëwee jéemal nga am maîtrise ci sa bopp lan mooy maîtrise su tàngee nga déglu ko ne pat patt day rey góor jigéen ñi foofu lañu wutantee ndax pat du ñëpp ko mën mais patt góor gu ko def da koy rey te góor li koy sonal mooy jigéen ji ne patt jigéen ji ne muut jigéen ji ne tekk tekkaaral góor day def ay bêtises mais yow mi jigéen mën nga ko jubbanti góor nu mu mel mel mel jigéen mën na koo jubbanti ni nga ko jubbante mooy lan defal sa ay fin defal sa ay caprice yoo xamante ne day tax yow li nga bëgg li nga bëgg sa jëkkër mel ko mën nga caprice caprice ba mu changé mais du question sa jëkkër daf la takk indi la ci kër gi taxul mu def la jaam yi ndax jigéen du jaam ndaxte ñun bu ñu amoon xel ñun jigéen kenn duñu moo guddi ñuy génn suñu kër dem di dugg suñu kër borom kër te loolu dafa jar bàyyi xel ndax lii ñi jàngale wuñ mais dañuy yee askanu Sénégal ndax da gis jigéen bu nekk ci sëyam nit gën na bon sëy mais daf au lieu mu encouragé la mais dalay découragé la bu doon man ay bu doon man te fekk bu doon moom la yëg xëy na amaanaa sax mu gën a muñ li nga gën a muñ kon na nit ñi di bàyyi nit ñi di sëy yow saa jigéen lay nekk ci biir néegu sëyam soxla ku mu waxtaanal soxla ku mu confidé confidence confidence lay bëgg ku mu waxtaanal sëyam koo ne dafay bëgg wax li nekk ci moom moo tax su leen nit yaakaare ba am problème ci biir néegu sëyam bu ñëwee neen tekk déglu ko ñan tekk déglu ko su waxee ba pare nga kon li baax daal di koy diggal ndax suñu ay maam dañoo bàkk woon mu sëy muñ yi itam def ko jaamu yàlla tarbiru seeni borom kër mais wutuñu ci alal wutuñu ci lu taaru te it góor ñi léegi daf am ñoo xam ne amuñu kóllëre ndax dangay nekk ak sa jabar mu lay muñal nga xëy benn jour rek yow jabar jooj dalay sàppi nga jéem a dem buti leneen ku ci nekk am ba droit takk ñaar ba ñett rafet mm-hmm. ni muy rafetee mooy ki nga xam ne moom nga njëkk a gis ki nga xam ne moo la jural nga xam ne moo njëkk say bët bu ko yemale lenn ci àddina suñuy ay papa suñu ay maam noonu lañ defoon ba am philosophie yor jabar yu bari mais léegi mënuñu yor jabar yu bari ndax lan moo tax mooy góor ñi am na ci ñoo xam ne dañuy génnee seeni feem génne seen extrasité ay sosolaate ay waxalaate ay sama aaw ba mel ku ci am sa aaw bu bonee da ngeen dul muñalante kon bul am lu bees tey nga tax nga xarab sa aawa jëlal nga téye jëlal nga def ko yaay jëlal nga téye ko sa biir kër te aaw yi nañuy tëddee njaxanaay doon nday di seex doon ay yaay doon nit ñoo xamante ne ay exemplaire ndax aaw bu baaxee aawa waaye aaw bu bon da yàq kër mooy taaw mook taaw bu bonayam kon na jigéen ñi di bàyyi xel ne sëy yàlla nañ koy jaamoo yàlla lu diis bu ñëwee fexeel mu oyof yàlla natt bu mu la teg boo ko nangoo mu oyof yow waaye boo ko diisalee mu diis kon nag sama mbokk jigéen ñi dee leen bàyyi xel ne jigéen borom kër mooy sangam te lu dul sëy sëy gën ndax sama jëkkër ju bon ji moo ma gënal foofu sama te far bu baax bi ndax jëkkër su bonee mën nga ko defar ba mu baax waaye bu far bonee mën na la doxaan doxaan sa morom te ku nekk nag mu ngi jéem a test sa jikkooy moroom kon nag loolu lañ leen indi ci thématique thématique bi képp koo xam ne am nga question booy posé rek mën nga koo jàllale ci commentaire yi ñu daal ci kàttanu suñu borom ñu fas yéene jël auditeur mala auditrice bi njëkk ñu fas yéene ko seetal na voyance plus confidence lañu wax allo asalaamaaleykum allo na tapoté live nañ ko partage macha allah asalaamaaleykum sang ñu ngi màggal bu baax a baax te di lay jox sa yëg waaye ku baax alhamdulilah macha allah tur bi naka la. ñu ngi lay màggal bu baax a baax. macha allah tur bi naka la ku baax. sant rek. Ousmane. Ousmane sant ak sa at ñaata la. Ousmane Diagne. waaw Diagne ñaar ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñaataat nga am Cheikh Ousmane. vingt vingt trois ans. dafa am sangat yu ñu la joxoon yoonu sangoo mu jeex dafa am ay sangat yu ñu la joxoon yoo doon sangoo mu jeex neen sangat yi baax na mais kilo suukar ngay génne nga mën cee gis li nga doon ñaan bi sang mu delluwaat wax ne bopp bi tëju mu delluwaat wax ne danga gaaw a découragé mais ku gaaw a mer nga donte ne doo jàpp mer war bari na ci yow mais sa xol neexul ne lëndëm lëndëm bari na trop sa wàllu toogaay Ousmane seet ne na fan yaram dafa diis jën bu jën jën mel ne jay na doon sa sarax saa yoo ko bu fekkee dafay am looy wuti yàlla dina la ko may bu fekkee xaalis war a dugg sa loxo yàlla dina la ko jox nee mu delluwaat wax ne borom 23 ans nee na kilifa ngay taxawal ndax doo jëflante ak como ñeent koo jëflante li nga ciy bëgg dëggantaan amu ko ci yaram bee tilim ba tey li nekk ci yaram bi dañu génnil ma bi ñetti saabu liibar nga saraxeel ma ko joxal ma ko jigéen boo ko joxee yàlla dimbali la yàlla taxawu la mu taxawaat ba tey mbég taxawalaat ba tey sant yàlla mu taxawalaat wóor dina la jox ndomba waaye bu la ko joxee na ko fonk bu la ko jox nag genre sagar lañ koy def lay doon damay gis bu la koy jox danga koy xaw a xeet ndax gëmoo lu bari en 100 pour cent sarax it fonkoo ko da nga war a génnee say sarax saa yoo xëyee di génnee sarax lu weex mooy sa sarax soo koy génnee loo wuti di nga ko am te yàlla dina la dimbali sëñ Ousmane nee yaa ngi waxtaan ak góor ci loo xam ne wàllu tukki lay doon même bu fekkee dafay dëgër dina sotti yaa may ngi lay dégg bu baax euh, seet day ànd ak waaw mbala dégg Ousmane boo waxul waaw dañ lay wàccee mu delluwaat wax ne guddi soo tëddee li ngay génn ci yàlla daf la koy wan. mu taxawalaat ba tey wax ne mbir sant yàlla ak réussite totale xol bi mën na di faral di tàng fit bi du toog Ousmane ngay gént di ànd ak jigéen neen da nga am cororab cororab moom nga am see Ousmane wutal ma faaru mbaam wutal ma faaru mbaam nga fanaanoo ko ñetti fan soo ko fanaanoo ñetti fan wut mbaxana bu xonq nga boole ko moom nga boole ko 1350 nga saraxal ma ko mag nga koy sarax mais da doon muskala pour li nekk sa yaram li nekk say mbir sa jafe-jafe ak say wàllu blocage mën a dañ loolu lañ gis sa wàllu seet daal dugal keneen sang bi ñu daal di koy seetal te na gars yi di jàllale commentaire yi commentaire yi na ko nit ñi di jàllale ndax soxna Mariama danaan def firi gént mais dama de ba sama liggéey yàqu mm-hmm. ndax ku woote rek wax géntam te bu boobaa da yàq sa liggéey mm-hmm. ndax am nañ beneen temps bu dul bii ko jëlal ma keneen na doon jigéen nag ñu seetal ko insha allahu rabbi mm-hmm. benn góor benn jigéen rek <laughs> allo allo allo soxna

ba sonn sa numéro ma perte ko borom ndar maa ngi jéggalu bu baax a baax boo paree def ma signe ci whatsapp bi Cheikh maa ngi lay màggal naka waa Saint-Louis taalibi Cheikh pourtant chaque jour nag maa ngi aimé say vidéo ci TikTok bi yaa ngi def lu am solo ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane yal na la sëñ Babacar fayal boppam euh, damay kontaan su ma ko gisee diini rek ak jamono naan ko diini ak jamono rek ngay dugal macha allah. Euh, naka ndeysaan ndeysaan maa ngi kontaan lool ci yow di lay bégee du lay ñaanal jàmm ak sutura di seet naka nga def ak famille bi ak waa Ndar yépp alhamdulilah seex at bi baal ma fàttali ma ko si soxo bànn euh, Cheikh Soumaïla si soxo waaw at bi ñaata la waaw baax na seex euh, génne ma ginaar gu weex tàll nga saraxel ma ko mais joxal ma ko géew waaw ginaar gu weex mooy sa sarax nee na yaa ngi ci liggéeyu mbooloo mais yenn saa yi danga fay jànkonteel ay problème ay wax yu sew nee na mu taxawaat wàllu liggéeyu mbooloo bi sa siège boobu nga toog góor la fa déjjati pour toogee sa place waaye du am ndam nee na ginaar gu weex ngay saraxe pour nga gën a yokk ci wàllu liggéey bi yàlla defal la jàmm yàlla taxawal a gën a ibbi sa wërsëg sañ seex nee na mu taxawalaat ndam mu taxawalaat ba tey loo gént gis koo sa gént du la jigéen ju la wanoon ginnaaw yaa ngi dégg ay xibaar ci moom mu taxawalaat xibaar goo xam ne ñi yàq ñu ñuy defar ñi lay gasal ñoo ëpp ñuy defar seex del moytu ay noonu privé ñoo xam ne dañuy ànd ak yow ànd rafet tàkkalikoo ñaawal moom la ñuy def sa diggante ak ñoom te lebaloo kenn lu bon dégg waaw yaa ngi ci ay xat-xat ba tey yaa ngi ci ay lëndëm-lëndëm nee na mu taxawalaat xat-xat yi dina doon jàmm doon ndam doon sant yàlla seex doo góoru benn jabar de di nga am jabar beneen jabar ngay am. di nga am beneen soxna mu taxawalaat ba tey jigéen ñi dañ la topp ah neen jigéen ñi dañ lay topp neen nga bari li nga yaakaar muy tas seet neen nga bari wom looy dugg dee ko nëbb seex neen na mu taxawal ndam taxawal mbég taxawal sant yàlla ndox géej dekk faral di saraxe xale nga mais dangay taxaw taxawaay kilifa seex di nga tabax kër tëgër gi ngay tabax ci tali lay nekk juste bul xeeb sa bopp gis nga sa xaalis biy dugg sa loxo loo am séddali ko jaamu yàlla yi te toog oto bu ñuul oto bu ñuul pare na presque. pare na alhamdulilah mais dafa am sarax boo war a def ci kër gi seex. xam nga saraxu ah. saraxu kër gi la. Ah. da ngay jël benn doomu xaal. nga ah. diw ci lem ba mu tooy daal di koy suul ci diggu kër gi nga wut cox. nga def ko ci bitéelu veer nga fëgg ko ba bitéel bi fees nga suul ko ci buntu kër gi ndegam neex na yàlla. ñu ngi fa dëkk ci jàmm dëkk fa ci salaam yàlla dina la dimbali si sa xobaan yàlla dina la taxaw ibbi sa wërsëg ci kàttanu suñu borom mu taxawal ba tey Cheikh da nga war a jënd xaru benn melo daal di koy yeew itam ci mbirum kër gi yaa ngi dag léewtoo ak beneen waxu sëy seet neen dina sotti mooy moytul ay nit di dégg sa ay wax seex si soxo di nga jàpp yoon del bitim réew ci kàttam suñu borom mu taxawal di nga liggéey ak ay tubaab te soxol dina ci sedd si soxo bànna wutal jaaru ak wutal ma jaaru ak xa seex nga takk ko sa main droite di nga gént lu mel ne fas mooy waral ay xayri goo xam ne day jub sëy boo xam ne dañ koy takk ci yow mais dina bari xeex ndax jigéen ñi duñ la bàyyi <laughs> jigéen ñi dañu la bàyyi. incha allah dafa loolu dafa loolu sama rakk xol maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax si soxo bànnaan sama rakk xol maa ngi kontaan ci yow ak di lay déggee suba woo ma jërëjëf si soxo ndeysaan waaw kay ñu rek amin amin amin si soxo bànnaan kontaan naa sama rakk xol. salaamaaleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay amin amin si soxo amin soxna si naka nga def. maa lay maa ngi lay fay bu wér wér te di la jox sa yéeguwaay naka coono yi. ça va alhamdulilah ñu ci jàmm bu baax. yal na yàlla xeeb doon di ça va bien bi naka la ak at yi la. Aminata Gueye 30 ans. ba Aminata Gueye Ndior la fi yu baax ndeysaan. ndeysaan yal na yàlla defal ko jàmm. naam Aminata ñu lay kontaanee de gis nañ sa commentaire ñu lay bëgg bu baax di lay ñaanal jàmm. ak sutura euh, Sam na gars yi tàppate live bi na live bi yéeg bu yéegee rek ñu toog ak ñoom ba une heure du matin fas yéene leen seetal ba mu daal waaw ah, bu yéegoo rek dañuy wàcc bu yéegul min bi pil ñu wàcc ndax dawuñu ci saala yaay ndeer ndax gars yaa ñuy xaar ñu war leen defal voyance dagg suñu yitte toog di leen seetal Amina Guèye Ndioro li njëkk a teew sa wàllu seen mooy démb wutal cuuraayu liban original ak mañankase nga jaxase ko dégg nga Aminata neen nga di koy faral di suuroo nee na wàllu wërsëg bi dafa xaw a bloqué wu boole sa yaram dafa suutante temps yi yaram bi daa xaw a suutante bopp bi day diis gan dara doo ko mën fan yi sa yaram neexul Amina wutal ma ginaar gu xonq nga windeel ko sa bopp ñetti yoon nga windeelal ginaar gi ñetti yoon sa bopp nga saraxal ma ko silmaxa bu jigéen sinon ngelaw saytaane moo nekk sa yaram te mën na dem ba tëral la dangay mel ne kuy miir yaram bi di jaxasoo seet na di nga jot alal ju takk nag mais coowal miraas di ko dégg sa biir famille mais mandu ca ndax dañuy dem ba di ci dóor ay galaaj dem ba ci def mystique dem ba ci dox yoon boo xam ne yoonu tribunal la te doo ko tal nee na boo ci fekkee mën nga bokk ca maanul rek a am di ko mu delluwaat wax ne itam góor moo la gën a bëgg ko jigéen mu delluwaat wax ne yaakaar yi tas bari na mu delluwaat wax ne ëmb doom bu góor boo xam day teew sa wàllu seet mais feebar la lay def sa yaram bi di diis waa ji sa la nee na nga jaxasoo ci lool mais del dalal sa xel te xam ne soom bi ceeb benn bool boo ko ci defee kii def dëddale bi ak liggéey yi dina tëb si lool ah waaw nee na kii def liggéey bi ndeysaan mais liggéey lañ ci def mais dangay def soom bi waa ji dina topp si waat xam nga loolu mu taxawal ne danga ko jàppale danga ko teg danga ko si ci accès bu xëyee wan la ginnaaw itam ay mbiram dafa yàqu dóoral ma ñetti nenu ginaar neen ñu xonq lay doon nga dóor ko toj ko suba nga dugg ci laay maam lu ma la wax loo xam ne du dañ ci waaj Aminata Gueye Ndioro <laughs> ñu lay kontaane Gueye Ndioro ak Basi génneel dóoral ma ñetti nenu ginaar nen ginaar original moom ngay jënd nga daal di koy dóor ci sere ba yoon nga dugg ci live ma wax la dudul dañ mais ba pare suba nga door ñu daal di lay continuer seet bi ci kàttanu yàlla ndax temps bi damaa bëgg gars mu yéeg ndax nee naa bu live bi yéegee rek ñu continuer ba une heure waaw ah, incha allah rabbi na ko gars yi day am solo sax sang bi d'accord waaw mm. ah, kay génn waa ñetti neen après suba nga dugg ci live bi ndegam neex na rabbi sama waat yi. salaamaaleykum. waaleykum salaam ma chérie na nga def. noo def yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm naka famille. maa ngi nii fan yëpp maa ngi bëgg a dugg mais aw sens bi tey. la ko yàlla dogal tey maa fi nekk benn ruub bi maa nekk fi. waaw. tey borom waat nga ko tey borom live bi moo toog di live-al boppam moo tax tey moom ruube du am. Ousmane da ngay ree ba tas da ngay waaru ñu koy nuyu moom tamit di koy masawu di koy bu baax a baax sànq Ousmane di lay kontaanee. islam na si ñaata at ñu ngi lay ñaan gudd fan. amiin amiin loolu di laay ma chérie naa gudd fan rek laay jooy. gudd fan moom allah. di ko def moom incha allah. solo téye ne sama xarit ndax su ma fi toogoon di dugg leen du neex. yéen a ma mm-hmm. ñaataat nga am chérie man am naa 23 ans. borom 23 ans ñu njëkk a teew sa wàllu seet mooy cat dafa fees dellu ci yow nee na mu taxawal góoru kilifa boo xam ne daf lay bàyyi xel nee na amoo sens góor yëkkati alalam jox la ko amoo sens mais yàlla ak yonenteen bi bala ngay am 25 ans góor dina yëkkati oto bu weex may na ko dégg nga. Mm-hmm. mu taxawalaat ba tey bopp bi dafa tëju neen sa diggante góor waxi sëy day dox sa diggante yaag moom mais coow moo ci ëpp ak ay wax. Mm-hmm. nee na mu delluwaat coow yi ci nekk yëpp ay yàqu-yàqu la danga xam góor gu nekk bitim réew. waaw nee jox na la bopp de. nee sa diggante xamanteeg yow neen ci la wërsëgam commencé di béy ko ay mbiram di dox mais day mel ne lu lay fàtte te doon nga koo xam ne ku la fàtte rek say rab fàtte ko ku la yëkkati say rab daal di koy yëngal gësam nee ngay dalal sa xel te nga jéem a takk say jaaj daal di jóg sa wàllu yaram pour yàlla taxawu la yàlla defal ndam nga taal ñetti sondeel nga bàyyi ko mu tàkk ba jeex yàlla dina la defal jàmm yàlla dina la taxaw mais xaw bari woon nee na mu taxawaat ba tey sëru luppi mooy yi përëfu tey di woddoo wut ci ñaari yaar nga daal di koy woddoo nga yend ko suba ba ngoon boo paree lem ko ba mu jeex nga boole ko nga boole ko 475 nga joxal ma ko jigéen bu màgget boo ko defee sëy bi day ñëw sotti ak mbirum njaboot goo xam ne dafay taxaw sa wàllu avenir ay seex di leen am muy taxawal góor ak jigéen soxna si ku la wax ne fi ngay mujje dalay nax da jàpp yoon dem tugal insha allahu rabbi ndé nga amin waay amin waaw léegi daal di naawal ay picc rek te boo paree bu live bi jeexee boo mënee woote nga woote ñu gën la faram-fàcceel sang yaaram dugalal keneen ñu daal di koy seetal ba mu daal wasaar numéro bi numéro euh, ñu ngi koy jàllale ci baar bi 060 43 10 képp ku ñu bëgg a jot dañ ñuy woote ci 060 43 10 na ko gars yi jàllale ci écran bi ndax live baa ngi yéeg wala yéegul bu yéegul rek dañ ko gars yi di yéegal lay yéeg ah, <laughs> li ñuy seet monde bi leen tëyee Euh, daal di jël numéro bi 060 43 10 na ko gars yi di jàllale itam ndax day am solo ndax loolu mooy gën a tax affaire yi daal di yaatu na gars yi tàkku ci daal di koy partagé daal di may jëlal beneen jigéen ñu seetal ko mu daal di wasaar. allo asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. Ah. bébé na nga def. salaamaaleykum. maa ngi lay ziar maa fi chéri na nga def. maa ngi fi yaa du si du si Demba Bala. <laughs> non non Bala Seynabou ah yow séeréer nga Diouf a ñoo ko bàyyi. naa ko yow maay sa buur de Diouf a ñoo ko bàyyi man tukulóor laa maay sa buur <laughs> xam nga ne séeréer yi. maa ngi waa Siin waa moom waa Bawal. <laughs> maay seen buur Diouf a ñoo ko bàyyi ak ñaata nangu nga kon aywa nañ doxal macha allah. vingt. Eh, 22 ans laa am. aywa Diouf ñoo ko bàyyi da ngay jàng ah da ngay jàng. vingt ah, jàng bàyyi nga loo xam ne dañ ci wut métier. formation dama def formation. waaw nee na di nga ci at me te yàlla dina la ci dimbali dina la ci may ndam mais danga am sarax boo xam ne danga ko def kanaara nga yóbbu góor nee na nga joxoon ma ko jeeg màgget nga koy jox pour yàlla def sa mbirum formation boobu yàlla may la ndam ba nga am liggéey boo xam ne dina suuf sa njort ci kàttan suñu borom dégg liggéeyu mbooloo góor dina la fa yóbbu. waaw nee na bu fekkee da yenn saa yi da liggéey xanaa. waaw damay waaw nee na mbirum commerce bi nee doxagu doxagul nag. ni mu war a doxee dafa xaw a taxaw génneel ma sept paquet biscuit. waaw nga sanu defal sept waxu naa nga dajji ko sept paquet biscuit moom ngay jël nga daal di ko jox sept taalibe nga ñaan si mbirum liggéey taxaw. pour yàlla defal la ci lu sut sa njot nga ñaan si mbirum commerce bi yàlla gën na ko yaatalal mais am nga saraxul sànqal huit sànqal ngay génne nga saraxe pour wàllu formation bi yàlla defal la ndam yàlla taxul neen sëy mbokk bi ndax dañ la koy wax dañ la koy xibaar amul sa benn mbokk buy ñëw di lay dabu si pour waxu sëy neen ndax jigéen waxu la waxi ñëwagul am na. waaw mais ndax jigéen waxu ne am na kum la bëgg a jox mais ci côté famille lay doon seet na ne sëyu mbokk boo ci duggee du dem am na góor gooy bëgganteel nag. mais yàq da ngay naan tey ndax sëy dina ci am wala du ci am soxna si sëy dina ci am da ngay wut ndoxu bu ñu sebetee ceeb ñeenteel bi ndox bi nga daal di koy sotti si nga sangoo ko pour waxu bi daal di sotti ndax da nga am àndandoo am rab te bi nga am daf lay yàqal te yow sa bopp da ngay gis loo xamante ne kenn du ko gis am na lu la yàlla may nee na am na lu yàlla def ci yow nee na xool sa ay nga ni enseigné bu man loolu moom la. booy xool sa ay maam dañ daan faj dañ daan def ay ñaan sa dëkku maam boo demee ba tey ay bagages ci cosaan dafa faa nekk nee na mu taxawal say bagages yi maam dalay topp yenn saa da ngay gis da ngay gént te lu la yàlla may itam mooy loo gént da nga koy gis moo tax yenn saa damay ragal sa bopp te it lu la sa xel mayul rek bu ci dugg. soo ci duggee doo ci am ndam mbirum sëy day taxaw mais sëy boo xam ne bu ànd ak mucc ànd ak xéewal ànd ak teraanga ki lay takk dina la teral mais ci biir xaalisu warugar bi bu la ko joxee da jënd mboote

060 ñu ngi koy bind ñu ngi koy bind ci commentaire yi daal di tàpp te laaj ñu naan ko tàpp de damay wàcc de. ah damay wàcc de dafa war a yéeg. dafa war a yéeg laaj ah, dafa war a romb saa nangam yor jàll ca deux ans. du dëgg allo. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, soxna su sell si ñu ngi lay màggal. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu di lay ziar. maa ngi tur bi naka la ak fooy wootee. maa ngi ci jàmm. maa ngi ci yàlla bu baax. ah. Tiwaawan ab sambay. ab sambay maa ngi wootee Tiwaawan. yaa Tiwaawan nga. guddi guddi ilaa Tiwaawan lay doon. Ah? waaw ñun Tiwaawan lañ dëkk naan Tiwaawan lañ dëkk. Tiwaawan nañ dëkk dëkk bu sell ba at yi ñaata la. 31 la. Euh, ab sa mbay ñu ngi nuyu bu baax a baax xanaa surtout tam si ma ñeeme mbay nga ma ca càdd. ah ab sa ah dangaa nekk Tiwaawan mbay rek. den fexe ngay wut saabu nga di koy faral di saraxe dégg nga saabu am parfum dégg génne nga di koy saraxe am sax neen di jiite mbooloo. mais mbooloo mi ngay jiite day taxaw comme mbootaayu jigéen bala kuréelu jigéen neen dina am ni mu neex amuñu mu naqaree mu tëj sa bopp mu jaaxal la seet neen nga xaw a bari woor neen mu taxawal gi diggu ginnaaw gi day metti sa yaram day diis soxna ab sal nee na mu taxawal dee jël diw lañu olive dee ko jël nga di koy faral di frotter sa yaram pour yàlla jàppale la yàlla taxawu la yàlla ubbi sa wërsëg seet neen da nga nekk ci say ab sal neen sëy bi nga nekk dina dugal sëy kujje bu dugalee sëy kujje jàpp na sa sëy day am problème am ay jafe-jafe te togg lu ruy ruy ngay togg sa sëy dañ ci génne saraxu ruy bi ah waaw sëy kujje ci nga ne waaj benn dañuy téye loxoom ci yow ñaar sa sëy taxul neex noonu day yàgg sëy bi day am ay problème day bari ay jafe-jafe te sa jëkkër day jàpp yoon yoonu tukki yoonu dem bitim réew du toog benn place yaa may dégg mu taxaw sa jëkkër dalay tàggu yoonu tukki soxna si nee na waaw jëlal ma ah. waaw neen daf lay tàggu mais yoonu dem bitim réew la neen di nga ma sàmm doom joo xamante ni góor la waaw neen day tukki maanaam laa la bëgg a wax ci gàttal neen mu taxawal ci biir yoonu tukkeem boobu neen bu demee buy waaj a ñëw nga xool sa règle du normal neen su demee bay waaj a ñëw da gis sa sëy day yëngatu ruy ne day togg benn bool nga koy def nga woo ay xale jël kudd yu bees ñu ko lekkee ko ko ñu lekkee kudd yi ba pare nga jël kudd daal di koy selandi ci raxasu nga jël ndox mi daal di koy sotti ci siwo nga sangoo ko nee na bi sa jëkkër demee ba tey neen sa yaram neexul sa bopp dafa tëju da jaxasoo sa sëy bi yenn saay sa jëkkër dañuy téye loxoom ba liñ ciy bëgg carrément du am mais borom gént nga seet gént gis ko te da ngay taxaw taxawaay góor nee mu taxawal wàllu commerce jënd jaay nga di koy def mais del moytu ay waxu jigéen ak coow dee ko moytu saa yoo coowee seen boobu da ngay toog doo yor dërëm soxna si mbay nee na histoire jigu la neen sa jëkkër dafa nekkoon ci mbiru yeggali këram am na lu mu fa yeggali mais seen kër ci boppam am na liggéey bu ñu fa suul soxna si ci bundu kër gi neen liggéey boobu saa yoo ko jegee di dem di ñëw day mel ni sa wërsëg la ñuy bloqué à chaque fois soo toogee ci sëriñ ñu signalé la liggéey bi liggéey bi ci bundu kër gi ci garab bi lañ ko suul soxna si te buñ ko dindiwul di nga nekk ca biir kër ga sëy fa ba caatlu fa pour seen biir ndox day doon problème bay mbasul baal ñu waay daal li may génne saax jëndal liibar guro guro bi na ànd ak ay xob na ànd ak yi nga xoj ko ci siwo nga sangoo ndax mi nga wut benn sijaada nga jël guro yi daal di koy takk ak xob bi nga joxal ma ko imaam mook sijaada bi yàlla taxaw la yàlla defal la jàmm ibbi sa buntu wërsëg mais seen buntu kër ci taatu garab fa la liggéey bi nekk soxna si bu la ñoree nag ñuy woo ñu tey ko tigal leen daal di muy dugal keneen sang yàlla mu sekkal ko tey dañuy dem ak ñoom ba une heure du matin na gaa yi tàppate live bi na live bi yeeg ndax lu yëg jamono yi. incha allah d' accord. dinaa la woo asalaamaaleykum allo. maaleykum salaam. soxna si na nga def. oui. ça va. maa ngi yaa ngi ci jàmm tur bi naka la ak aji ñaata la soxna si. Aminata Sène la 34 ans. Euh, Aminata borom 34 ans seet neen nga togg tufe mais tufe bi doo ko rosi ak diwlin da ngay yàpp bi boo paree nga jël soble jël pomme de terre jël sa tufe ngay togg tufe. ngay togg mais doo ko rosi lépp day fekk si ndawal bi ci biir neen boo ko toggee nga taaj ko benn bool daal di koy teg ci diggu kër gi yàlla taxawal ibbi say wërsëg nee na mu taxawal da nga bari ay bari liggéey yoo xam ne dañ la koy def nga bari xeexu mbokk xeexu famille soxna si nee na mu delluwaat wax ne itam da nga doon doomu tuur moo tax pour nit jàppale ci gàllaaj sax seet nee na di nga ree di nga am ndam di nga gudd fan soo piir nga def ko njaar soxna si nee na say góor ñee ëpp te doo bari doom góor ñi ëpp say njaboot yaa ngi dégg allo ah. waaw nee na ngelaw saytaane mu ngi sa yaram boo ko fajul dinañ tëral feebar jamono yi xawoon nga tëdd feebar fi nga nekk daan écho mbala kenn ci suuf. Ah. nu tëj micro am bu fekkee da nga def haut nga dindi ko haut dindi.